bismillaahi rahmaani rahiim ñu ci nettali fukkeel bi ak ñaar fanweer bi ak ñaar sëriñ bi xaadalawoo law maxtaaralawoo mas nay wax ay mag ba wax lu yéeme am ku ni looloo ko sew sëriñ bi ni xanaa ma sàmma gan di nekkul ci jataay bi ñu xool ni ko nekku ci mu ni nañu ko woo ñu woo ko mu ñëw sëriñ bi nettaliwaat ko mu ni kon mbakke yaa kawam xel sëriñ bi ni ko hàkkasa masamba noonu lañu koy waxe ni ko masamba waxuma lu sew jëfuma lu sew xajuma fu sew siiw na nettali bi bindoon naa ko waaye day def saa suñu gisaatee dara lu juyoo lañu nettali woon lu mu tuuti tuuti dañu koy bindaat ndax fi mu ne sëriñ bi bu toogee di waxtaan fukki nit nekk fa bu ñu jugee ba dem di ko nettali faaw seeni làmmiñ juyoo moo tax nettali bu bëri ay waxiin li muy xamle mooy am gi ak sax gi may ci lii mooy teggiin kon teggiin boo ko amee ci say jëfiin ba nopp da nga koo war am ci say waxiin sëriñ bi nag xaadalahu law maxtaara lahu daa dem dayo ci teggiin moo tax mu naqaree waxal waaye li war bu lépp li war murid bi lépp lu mu dégg ci moom ci ay waxin walay jëfin mu koy jéem a roy wallahu taala huwa al alam ñu ñëw ci nettali fanweer bi ak ñett Sëriñ Tuubaa xaada la wallaahu maxtaara la woon nee na lu bon jigul kenn waaye day def ni ku nekk ci lu bon ba lu bon xam ni yaa ngi ci moom dalay fay moom dala fay def fekk dem seeti moroomam su ko defee diggante boobu yi muy seeti ay moroomam soo rombee koo koy def lu bon da ngay wax ni kii lu bon li muy def jim ne ko waaye saa su lu bon gisee ay moroomam ba ànd ak ñoom andi leen diggante su gàtt kookee ku ko gis da nga xam ni lu bon jigul kenn siiw na wa umli lahumoo inna kaydi matin sanastadrijuhum min haysu laa yaalamuun daa bëgg a xam le ni ñàkk a gis ay lor ci lu baaxul ci ay wax wala ay jëf du tegtale ni lu baax la wala sunu borom subhanahu wa taala ànd na ca ak yow naka noonu ñàkk a gis ay njariñ ci lu baax du tegtale ni baaxul wala sunu borom àndu ci kon li war a jaam bi mooy mu gëm yàlla subhanahu wa taala bu wóor lépp lu mu ko tere mu xam ni lu koy lor la lu baaxul ci moom la lépp lu mu ko digal mu xam ni lu koy jariñ la lu baax la ci moom doonte gisuñ njariñi wallahu taala huwa alam ñu ci nettali fukki fanweer bi ak ñeent Sëriñ Tuubaa xaada lahu law mas naa wax maam ceeno suñu tuddee yonente bi lu ngeen ciy teg mu ni ko dañuy wax sallallahu taala alayhi wa sallama alayhi salaatullah sëriñ bi ni ko man nag joxañ boppam mu ni ko xanaa nga dimbali ñu ci ba fuñ la tuddee ñu xam lañu cay teg sëriñ bi ni ko fuñ ma tuddatee ni ngeen di wax amul moroom ku ci jàq wooma mbaa nga am xaajo wooma danga xam ni ooma moroom siiw na lii ab bind la ndax ñu bari daanañ ko bëgg a xam waaye man li may jàng ci lii mooy kennal ko ak wéetal ko sëriñ bi daa kennal yàlla subhaanahu wa taala sunu boroom daa daa kennal yàlla subhaanahu wa suñu boroom faye ko ñu war di ko kennal ak di ko waxtaane bañ koo booleeg dara yonente bi sallallahu taala suñu boroom subhaanahu day julli ci moom ak malaakaam alayhim assalaam sëriñ tuubaa nag xaada lahu law maxtaara lahu mel na ni jàng nañu ci waxtaan yi jàll ni ku ñuy war di waxtaani la ak di ko kennal ni ñu ko jànge ci waxtaanu tey jii lu ñu gën di def loolu di gëna a jige yàlla subhaanahu wa di ko gën a jariñ wallahu alam ñu ñëw ci nettali fanweer bi ak juróom sëriñ tuuba xaadalahu law maxtaara loohoo nee na na ngeen ragal yàlla na ngeen sant yàlla loolu nag lu diisi wax rekk la waaye du ay wax ay jëf la day di jëlu téere jox ko sëriñ Mouhamadou Diop ni ko maa ngi leen di dénk ragal yàlla maa ngi leen di dénk ragal yàlla mooy liy jariñ tey tey ak suba wér na lool war nañoo xam ne ragal yàlla subhaanahu wa taala mooy bàyyi li mu tere ci loolu ngay mën a sant yàlla subhaanahu wa taala sant gu wér na fattaqullaaha laalakum tashkuruun war nañoo xam ne sëriñ bi xaada la law maxtaara lahu xam na xam na mbooleem yiw yi ak jëf yu baax yi kon lu mu tànn di ko digle ba noppi wax ni mooy lii jariñ tey ak ëllëg war na ku nekk mu ciy góorgóorlu kem kàttan ni ñu koy mëne nag mooy di bàyyi benn benn tere yi tey taxoo bàyyi gi nga xam ni dañu naan weer wii fosuma cee jëw moo tax mu ni nga xam ni dañu naan weer wii fosuma cee jëw bu demee ba dëkk ba ñu tàmm ko ñu daal di jàll ci beneen te ñu xam ni sawaras àdduna daa am te mooy naqari ak jafe-jafe yi loolu itam li ëpp ci li koy waral mooy bàkkaar yi yàlla nañu yàlla li ci ragal ko ci barkeb sëriñ Tuuba xaada lahu laahu maxtaara lahu ñëw ci nettali fanweer bi ak juróom benn sëriñ Tuuba xaada lahu laahu maxtaara lahu nee na nit ki ñetti yëf la xol bi ak làmmiñ yi ak cër yi ci des xol bi am na ab dëkk bu mu dëkk am na dund bu mu fa war a dunde làmmiñ wi am na ko cër yi ci des am na ko xol bi ana lu di dëkkam mooy wéetal yàlla ana lu di dundam mooy yéene yiw bu saxee ci dëkk bii di dunde ci dund bii lu tumuraanke du yooyu làmmiñ ana lu di dëkkam mooy tudd dundam mooy waxu yiw bu saxee ci dëkk bii di dund ci dund bii du tumuranke du yooy ci li ci des ana luy seenu dëkk mooy lu war ak lu ñu sopp ana luy seen seenu dund mooy jëfu yiw bu ñu saxee ci seen dëkk bi di dund ci seen dund bi duñu tumuranke duñu yooy boo saxee ci yéene yiw ku la mën a bañ dana la mujj sopp boo saxee ci waxu yiw ku la mën a ŋàññ dana la mujj tàgg boo saxee ci jëfu yiw ku la mën a toroxal dana la mujj teral wér na lool am na ay wuute moo tax ma indiwaat ko nii nga xam ni moo gën a mat gën a leer kon mbooleem cëri xol bi làmmiñu lépp war nay jaamu yàlla subhaanahu wa taala kon ba tey ci lii sëriñ bi wax xaada lahu lahu maxtaar lahu ci ngay gën a dégge wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bind ma nit ak jinne lu dul ñu may jaamu gis nga yaram yi lu ci ne ni mu war a jaamoo la sëriñ bi doon leeral noonu ba tey da nga xam ni ku ko defewul ni mu ko waxe faawu muy am ay jafe-jafe yoo xam ni du xam lu ko waral te fekk docteur bu mag bi leeral na lépp leeral na ko lépp ba noppi walaw alam bismillahi rahmaani rahim ñoo ci nettali fanweer bi ak juróom ñaar sëriñ Tuuba xaada la woo la woo maxtaara la woo nee na ndigal lëndamuk fajar la ci leer rekk la jëm lu dul ndigal leeruk timis la ci lëndam rekk la jëm siiw na loolu soriwut ak liñ daan wax dee leen topp ndigal tey bañ a topp am xel li ko waral mooy ndigal daa jóge ci sunu borom subhaanahu wa taala xel nag mën naa jóge ci malaaka ak jinne ak seytaane yàlla nañu yàlla dimbale ci topp ndigal walaahu alam ñu ci nettali fanweer bi ak juróom-ñaar sëriñ Tuubaa xaada lawoo law maxtaar lawoo nee na murit bu sóobu te wàccul yoon wa bu ñaanee yàlla yàlla dana ko nangu ni muy nangoo ñaanu ki koy wamat wér na lool li ko waral mooy murit bu mel ni mu war a mel daanaka day doon jëmmi sëriñam loolay waral lu mu ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala nangu ko ginnaaw loolu ma leeral tuuti itam ci wàllu ñaan ñaan daanaka amul genn ku nanguwul xana gogi ak gi nga gisul fim ne boo ñaanee borom subhanahu wa taala ta fekk nga amé bakkar da koy faré bakkar ya bo delloo te amo lu bari yow man xiyam mu nang ko may la ko fofa nga dellu ñaan mu door la ko wan wala mu dindé ko jafé jafé yay faral di am ca may ga nga dellu ñaan mu door ko andi bu wër nga gis ko du am ben nax-nax wala alam ñu ñëw ci nettali fanweer bi ak juroom ñent sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo nee na ahlu badrin mas na mas nañu ko gane si fi njaareem guddi far yeex a dem ba dégg jéeri di noddu ngir yeete ñu war seeni fas di dem bi ko sëriñ bi nettaliwaat ca yoor yoor jéeri wax ni gis na leen waaye xamutoon ñu mu doon wér na bu fekkee jéeri mii mooy sëriñ jéeri waa daan sugu kon gisu xol lay doon ndax ay bëtam daa muur woon te sax fa innaha laa taamal absaaru walakin taamal xuluubu lati fi sudur xool mooy gumba loolu nettali bi doy na ci tegtal ndax ñi yorey bët gisuñu loolu moom mi ko yorul ci saahir gis leen ahlu badri ñooy saxaaba ak malaaka ya teewoon xare badar ci diggante màkka ak madina ñooñu nag mujjoon nañu dañu daan taxoog sëriñ bi ci fépp fu mu nekk ba tey jii ci ni mu ko yaxale ci ay mbindam lu bari wala alam ñu ñëw ci nettalim ñeen fukk bi sëriñ Tuuba xaada laxoo la maxtaara laxoo mas naa xëy nañ ma wool Muusaa mu mag ñu daldi woo ma ñu jàpp ni moo fa njëkk te moo gën a bari ay at mu ni waxuma mii Muusaa sama moom laa wax fekk moo ma mel ni ku génn ba mu ñëwee mu ni mii laa wax ndax mii moo denc waxe sunu borom ci ab dënam muy sëriñ Muusaa Xalima Géey sëriñ bi xaadalewoo law maxtaaralewoo jox ko am mbind ubbe ko ñaari feggu ni ko sottil ma ko te bul xool mbind mi booba kenn kuy nit fekkewu ko ci ëllëg sa muy jébbalu si mbind ma fekk fa Cheikh Ibra Fall toog ak sëriñ bi bi sëriñ Moussa jubee sëriñ bi mel ni ku xaddamiku ngir sëriñ bi yëg ko sëriñ bi xool ko ni ko yaa Moussa aqbil wala taqaf innaka min al mu agsi toog ni ciel sëriñ bi ni ko defe nga ko nama la ko waxe woon mu ni ko waaw Cheikh Ibra gi xool sëriñ Moussa ni ko yow Moussa mos nga lool di moo nu ñuy binde loo mos la gis mosoo koo dégg te juumoo ci sëriñ Moussa ni ko moo yawit noo def ba xam li ñu ma doon defloo te fekk ko kenn nettaliwu la ko fi mu ne sëriñ bi xaadalawoo law maxtaaralawoo boo toogee moom sag ruu day dugg ci ak room mooy tax da ngay daal di xam lu bari ci li muy xam ndax ruu moom dara ump ko waaye bu nekkee ci yaram wu setul du mën a xam dara loolu moo tax sëriñ bi di wax ni toog ak nitu yàlla day raxas ab xol di ko setal yonente bi sallallahu taala alayhi bi wa sahbi wa sallam am na ku ma waxoon ci saxaaba yi radiallahu taala anhum ni ngeen di mel bu ngeen nekkee fi man bu doon lu bu doon luy wéy da ngeen dem bay gis malaaka yi alayhimu salaam ba tey ñaar danañ bokk lépp te soree lool li koy waral nag mooy lii sëriñ bi wax te moo di sikkar rek ndax sëriñ bi daa wax ni Muusaa mi nga xam ni daa ëmb waxe sunu borom subhaanahu wa taala kon ci tudd yàlla lu bari ci la ñuy rawantee ci la ñu sëriñ bi di gën a soppe ak yàlla subhaanahu wa taala gis nga sunu borom subhaanahu wa taala bi muy misaal naa fiq yi daa wax ni wala yadkuruuna allaha ila xalila lu néew la ñuy tudd sunu borom sadaqallahu asim ba tey bi muy tagg julli li daa wax ni yaskuruuna allaha qiyaaman wa qu'udan wa ala junubihim dañuy tudd yàlla ci buñ taxawee ak buñ toogee tëddee ci seen wet saddaxallahu alazim sëriñ bi suñu boroom may na ko du bëgg ngir ludul yàlla du bañ ngir ludul yàlla subhaanahu wa taala waaye bu ñu seetloo ñi mu daan màggal ak di wax ci ñoom lu rëy ñëpp ay jàngkat alxuraan la ñuy doon daa ko jàngale te farlu lool wala alam ñu ñëw ci nettali ñeent fukk bi ak benn sëriñ Mbàkke Buso mas naa taxaw ñaari doomam sëriñ Asan ak sëriñ Baaxir ba seen alxuraan rafet ñu bind ko jàng xam-xam ba denc réer mu yónni leen ci sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo ngir ñu jébbulu te soobu sëriñ bi natt leen ba xam fañu toll mu ni Mbàkke Buso raxas na ay ndabam ba mu set amul lu mu ci def mu jébbale ko ngir ñu defal leen ci dara waaye danaa ko ci defal lu mu xamul ak lu mu amul loolu sorewut ak li ñu wax ni daa amoon ñu doon laaj sëriñ bi bu ñu àndeek ab tawlibe ba mu toll ci war a am ngërëmul yàlla wala mu war a am leneen lu ñuy def mu ni leen mu ni leen wuli leen ku mokk maay duy wér na kon bi day leeral ni day leeral ni wulli te mooy defar mooy jàngal ko alxuraan ak xam-xam yar ko ci biir njàng mi bu baax a baax loolu bu amee la ca des sëriñ bi xaada la law maxtaara la la ko yàlla sunu borom subhanahu wa taala jagleel ba tey daana wax fàggu ak leer fàggu fa nga koy def moo ko gën siiw na di ñu xamal ni bala moo solati kenn ay mbootam ak i mayam ak i jagleelam faaw mu tege yoon bu wér te yaru bu wér walaaw alam